lobu John Kara nee na coppe ba da koy lobu loobu yoof résisté na John Kara jël na tank ba da koy tëjam déet e lobu yoof lobu yoof dem nga erreur John Kara ma nga ca tank ba ba léegi ndaysan jël na tank ba ba ak mom jël na tank ba ba sigeeg moom John Kara lobu yoof lobu yoof do ci génn John Kara mu ngoy koy jéem lobu dëj war nako sañaxal nako ko nañ ko jël am na arbitre arbitre bi nee na ku daan John Kara moo daan loobu yoof ndeysaan dafa teg pees John Kara daan na loobu yoof